nga ca dikkaay bi di Rewmi Quotidien moom procureur Ibrahima Bakhouma ni ki démb daan wax ne am na benn waaye bu tudd Yargassi boo xam ne teg nañu ko loxo ci lu jëm ci enquête bi nga xam ne ubbi nañu ko ci lu soxal tentative d'assassinat Ousmane Sonko te Yargassi moomee procureur daan wax ne militant Pastef la Ousmane Sonko ci biir yéenekaay gi na ko bul ci sore ndax Yargassi moomu nga xam ne moom ngay wax maanaam laalewu ci ci te li nga xam ne jox defuñu ko mbir mi noonee la demee man Ousmane Sonko li nga xam ne moo ci am ba am daal benn élément bip boo xam ne moo ñëw pompe man loo xam ne jamono ji gars yi ñoo ngi siy def ab analyse Ousmane Sonko ci biir journal bi nee nga xam ne wax naa ne ñoo koy def ci liquide bi nga xam ne moom la ñu ma sotti loolu tax gars yi di jañax jeexi moo tax àndatuñu ak seen sago waaye nag nañu dal rek ba tey ci biir yéen kaay gi di réew mi quotidien procureur Ibrahima Bakhouma daat nay wax ne am na ñu ñu teg loxo te ñooñee jàpp nañu ne dañoo bokk ci commando yoo xam ne dañoo bëggoon a def ay na ku ci tudd Kaba Jakite am ku ci tudd Famara am ku ci tudd Pape ak ku tudd Karim Bey Ousmane Sonko ci biir journal bi daat nay wax ne léegi sant sant woo xam ne mën nañoo jàpp ne Casamance nga dëkk loolee déli la ci réew mi journal bi di réew mi quotidien moom procureur bi daat nay wax ne ñii nga xam ne teg nañu leen loxo dañoo bëggoon a faagaagal ay kilifa ci réew mi yéen kaay gi di direct news xëy dañu xibaar naa ñu procureur nga xam ne teg nañu leen loxo ay membre yu nekk ci magistrature bi la yoo xam ne ay

docteur Babacar Niang bu suma assistance bi nga xam ne li ñu koy toppee mooy nit koo xam ne dañu koo seetaan ba mu ñàkk bakkanaama Mamadou Ly moom ay mbokkam ñoo daal di porter plainte Babacar Niang procureur bi nee na dañu ko woolu ñëwul loolee moo taxoon ñu koy wër journal bi di Vox Populi ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu sortie bi procureur bi def ak li mu wax ci wàllum wér gi yaramu Ousmane Sonko waa Benno nee nañu loolee mooy firndeel ne Ousmane Sonko bi di Les Échos procureur benn jàngoro boo xam ne gis nañu ko ci Ousmane Sonko bu paasee ne dafa asma am na ku ñuy wax Mamadou Diémé kookee membre MFDC la moo yor lépp lu jëm ci wàllu mystique gu Ousmane Sonko teg nañu ko loxo yéen kaay gi di direct news ci xët mu njëkk ma mu xëy di ñu xibaar nañu procureur bi nee na amul benn signe boo xam ne gis nañu ko luy firndeel ne Ousmane Sonko dañu ko bëggoon a empoisonné procureur bi tamit nee na tentative d'assassinat amu ci yarga mi nga xam ne moom la ñuy njortu ne moo xëpp Ousmane Sonko loo xam ne mënoon na ko faat kookee jamono ji teg nañu ko loxo docteur Babacar Niang journal bi di direct news nee na li ñu koy toppee mooy non assistance à personne à danser yéenekaay gi di Rewmi Quotidien procureur bi wax na ci lu jëm ci rapport Cour des bi wax na bënn gërër géex dal ci waa Pastef ba xolam sedd lu ne mu tuumal leen ko waaye amul ko procureur bi convaincre maanaam procureur bi convaincreul kenn ni ki démb ñi nga xam ne ñooy médecins yi ba ñu leen laajee lu jëm ci wàllum dossier médical Ousmane Sonko dañoo lànk waaye procureur bi nee asma moo dal Ousmane Sonko journal bi di Vox Populi nee li gudd gàtt li procureur bi wax maanaam dara du ci dëgg ba tey moom Ousmane Sonko daan nay wax ne sant sant woo xam ne da lay yóbbu loolee dansé la ma ci Les Échos yéen kaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñi nga xam na ñoo farek Ousmane Sonko di waa Pastef ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax lu jëm ci wàllum violation secret médical bu Ousmane Sonko Ousmane Sonko nee na Macky Sall jeexal na jamono ji moom ci boppam xam na ne askanu Sénégal ñoo ko wan ginnaaw waaye nag na ko leer ne danañu jàmmarloo ak moom lu mu ci bañul duñu ko ci bañ yéen kay gi wal Walf Fadjri nee na ñi nga xam na ñuy waa Pastef ñu leen di tuumal ne dañoo jokkoo ak waa MFDC ndax jëmuñu maanaam ci dissoudre li nga xam ne mooy parti bi di Pastef yéen kay gi de li wax garaaw na loola ndax na ay samba booy ñoo xam ne ñoo bëggoon def ay ñaawteef ci ay kilifa ci réew mi ay kilifay politique ci réew mi kilifay di nekk taskado xabaar ak ñu nekk ci magistrature bi waaye nag ñi nga xam ne ñooy takk der yi loolee di ab pièce boo xam ne jot nañu ne ci Pastef la bokk ñoo ko naroon amal waaye dañu ko gàntal yéen a kaay yor yora xëy diñu xibaar naan waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag nee nañu ñu autoriser leen ak ñu ñàkk Le nga xam ne ab oto bip bu sëfoon ay lan moo tax procureur waxu ci journal bi de Le Quotidien yor yor nee na du loolu rek ndax moo ko fàtte waaye nag ci ak tayif la ndax lu toll ci fukk ak ñeenti nit faatu nañu fi mosu leen a dégg procureur yéy ci yàbbi am na lu toll ci 45 milliards yu arme yi nga xam ne moom lañ fi doon ngawta ngawte déggu leen procureur bi wax ci bëri na ay rapport yoo xam ne ba léegi mujjul fenn góor a jóob mi nga xam ne tamit ab otom nervi moo jaar ci kaw ma mi nga xam ne nee na dañu ko bëggoon a fàtt procureur bi